sëñ bi. waaw ñu gis ni tey ji senegal am na tiis am na njaaxare kii di Père Balla Gaye euh, génn àdduna tey guy gi nan la dundee loolu. waaw comme ni ko nit ñi dundal di ko julli di dundal rek di wax na auzu billaahi mina seytaani rajim bismillaahi rahmaani rahim gannaaw ban sant yàlla jul ci sant sama ñaari waajur nuyu sama sëriñ Saa Sekk borom ndigal di ñaan Sénégal na fi jàmm yàgg ak wér parce que yàlla moom moo bind dee bind dund bind naqar bind neex bind tey kenn ku ne am na boo ci jot tey sunu père Balla di wax ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun tey lii la ko yàlla dajaleel ci mbooloo mi muy bisam bi bi mu génn àdduna keroog kenn ku ne gis na li am Cambérène kon xel dal na di ñaan yàlla rek cat seexlu ko bañ ko jiitu ci bàmmeel yàlla mënu ko yàlla na ko yàlla def yàlla yóbbu ko ajana yàlla mi nga xam ne nii yàlla moom moo yóbbu ajana yàlla rek moom moom ajana kenn moomul ajana amul doomu aram bu ni moom na ajana wala mun na faa dugal nit kon yàlla mi ko moom mu ngi ko ñaan sunu borom mu jël sunu papa ji ak Mor Faram tàbbal ko fa ci àjjana su yàlla mën na ko yàlla na yàlla def ci barke Seydina Mohamed. waaw ah, Ketchup ñu gis ni tey Sénégal am na tiis am na njaaxare tey ji euh, per Balla gi euh, génn àdduna tey lan nga lan nga gisee loolu. waaw dañuy sant yàlla bu baax julli ci Yonent bi sant suñu ñaari waajur di ñaan yàlla yàlla def jàmm Sénégal lii met na trop waaye yàlla moom lu mu dogal moom force day am kenn waaw di ñaan Père la yàlla xare ko arjana firdawsi ndax nit ku baax la woon nit ku yiw la woon nit ku gore la woon di ñaanal njabootam ay saraxam yàgg seen loxo yàlla yàlla def jàmm si réew mi daal te xaare ko àjjana waaw metti na neexul ah mais mook dund bi ñoo ànd daal ñu ñaanal Père Balla yàlla xare ko àjjana te yeexiñu suuf oyof si kawam ak mboolem jullit bu mu fa fekk suñu papa la woon nit ku baax la woon ñu koy ñaanal daal xam nga yàlla xaree ko àjjana si barke alxuraanu karim suñu papa la woon xam nga yéen woon ñëpp jàmm daal di def lu baax di wax lu baax lii nag mook àdduna bi ñoo ànd daal nu ñëpp waajal seen bopp te xam ne ku ne am nga si bés yàlla na yéex nag ñu ngi ñaanal Père Balla yàlla xaree ko àjjana te yéex ñu si barke alxuraanu karim waaw Père Balla Gaye 1 moom ni ñu ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla yërëm xaree ko àjjana rek yàlla na suuf seet ko bu baax si daraja Seydina Ahmad sallallahu alayhi wasallam te yàlla ko yàlla fay xolam ndaxte moom wax dëgg saal ku baax la man sama papa la sama la Ah, waaw do waaw mënu ma nag lu du ko ñaanal wër a gudd fan rek si daraji Seydi yàlla yërëm ko xare ko àjjana si daraji Seydina Ahmad sallallahu alayhi wasallam waaw mais di sant yàlla rek tax xam ne ñu ñëpp ñoo jugéendoo ci maam Adama ak aw ñu jëpp benn lan kon Sénégal bu kenn amee bànneex ñëpp koy bokk waaye bu naqarambee ñu ñëpp ñoo koy bokk quoi te suñu père Balla Gaye wax dëgg yàlla kilifa gu baax la xam nga yàlla na ko yàlla sama borom teeroo yor mën dem dafal kay la dëkk saa ju nekk ñu ne Père Balla Gaye ne Père Balla ne Gouye Gui tey Père Balla Gaye lan la lan lan la woon si Gouye gi ak lan la def si. non bëri na dama daan woo jaar palaasam mu may conseil su may bëree mu may conseil xam ci lu ma nekk su ma amee combat mu may woo nii nga war a def lii nga war a def xam nga loolu moom ma gën ay yëg-yëg la ko loolu sant yàlla te ñu koy jëfee amoon na yaakaar ci man bu wér-wér yaakaar boobu yàlla bu ko yàlla tas am na fu ma tegoon bu wér nag man man xam naa loolu même donte nekkuma école mais am na fu ma tegoon tey jii Père Balla Gaye ak Ketchup ban lien lan am ak ban relation. sama papa la sama maam la sama lépp la daf ma doon romb di ma conseiller ma romb ko ñëw wàcc taxaw ci mbaar mi fii stade Amadou Barry waxtaan ak moom après dem tey gëj naa ko gis tuuti nag ndax xam nga nekkuma fi moo tax mais tey suñu xel ak suñu xalaat yëpp mu ngi ci moom te duñ ko fàtte si ñaan incha allahu rabi ndax loolu rek la soxla fi mu nekk nii. tey Père Balla Gaye papa Père lan la def si papa. waaw man de wax dëgg yàlla moom heure bu Musaana sol daalam dem place dina ma conseiller daal waxal ma lu baax na ma moytul lii defal lii làmb lii la laaj lii la bëggul lii la bëgg du benn du ñaar du ñett xam samay mag xam sam pap mu nekk nit ku baax loolu daal xam naa ko si mun te dund naa ko ak moom maa ngi koy ñaanal yàlla xaree ko àjjana te yeexee ñu di ñaanal tamit njaboot ko mu fi bàyyi yàlla may leen xolum muñ rawatina yuusu daal yàlla na ko yàlla defal jàmm may ko xolum muñ metti na neexul mais ñëppay dem daal yàlla na yéex nag si barke alxuraan. Père Balla Gaye lan la lan lan la woon si yaawu jaal ak lan la def si yaawu. non man sama père man daan dégg téléphone woo ne ma yaawu yuusoo ñu noonu sa loxo da ko daan wax naajes ma ba ay soxna ma ay waa këram ah ah loolu dafa ma daan woo ne ma yaaw yuusoo ngi noonu yuusoo ngi noonu sa loxo peut être peut être dugg na fii génn fi jàpp ba am na yoo xam ne du waxu fii xam la kat mais ay njabootam wala yuusu xam na

non peeru Balla Gaye peeru mbër yëpp la yaa ngi dégg làmb ju dara am fo kese la du dara tous mais relation yi ak diggante yu naaj yi solo mais làmb ju dara ay caaxaan ay fo kese la làmb dara doo dee ñu yàlla sa bàmmeel laaj na da woon bëre non non sa jëf ju baax lan lay laaj foofu te peeru Balla Gaye peer woon boo xamante donc moom moo créé gëb de lutam nekk fa ak ay doom mais sunu papa la ñun bëri yëpp yaa ngi dégg kon nag loolu mu doon sonn ci njabooti jàmbur yi yaa ngi dégg yàlla na ko yàlla soo borom defal aw yiw ci biir bàmmeelam ci barke Seydina Mohamed. ñu gis ni moom bokk na si një moo mën na ne moo njëkk a tijji fii école de lutte fii Sénégal loolu école boobu fan la fan la fan la yóbbu làmb gis nga ko école lutte boobu mu tijji gis nga ko ci ngay dégg école lutte Mor Fadam école lutte Waaro école lutte Double Doubles fépp ngay dégg kon defe naa loolu lim lim sumboon lim sumboon yàlla teg na ci loxo am na barke di ñaan yàlla rek di jaale taawam bi Youssou mu fi nekk ak Moussa ak njabootum Balla Gaye gi yëpp bàyyi ma kenn di ñaan yàlla rek yàlla teg ci njaboot ak doomu aadama yi xam ne ni ñu benn di def ngistal teg ci loxo yàlla ko yàlla na ko yàlla def. ñu gis ni moom moo fi njëkk a créé euh, école de lutte tey bu ne école de lutte moom moo ko fi njëkk a euh, xam loolu noonu nan nan nga ko gisee ak lan lan fan la yóbbu bëri. waaw ah, yóbbu la bëri fu ku defar Balla Gaye 2 kañ defar nga àdduna Balla Gaye 2 mooy la meilleur lutteur du monde te bay moom moo ko formé te ku formé ku mel ni Balla Gaye tey desalatoo làmb dara kon ñu ngi koy ñaanal rek encore une fois rek yàlla yërëm ko te xaare ko aljana firdaws pour moom keneen ma daan ko xam ko même bu fi Balla Gaye dégg liggéeyal ci xale yi ndax écurie day am relais ko leen ma xam ne Balla Gaye la moo tax euh, doomi xol la doomu xol la kooku noonu rek la war a demee xam nga ki ànd ak yow succès amul xaalis amul tàccu amul di la topp. waaye maa mu ñëw entraînement te heure yow sa papa ma ko gërëm toog di la taxaw taxaw boo xamante ni say waajur moom ñu ko taxaw bëgg nga tekki boo dee ba tekki noo ko defal euh, ngaa delloo parti ci daali rek ñi ngi gërëm Balla Gaye mais ñi mu def rek war a def ndax dañ le àll mënta ñeem ak ñu ne ankay ndax àll bi ko amul kon loo def ci lu baax dañ laa war a gërëm Balla Gaye de taxawaay bi mu taxaw rek la war a taxaw ndax Balla Gaye de bàyyi ko benn yoon bu jëlee avance mu di ko taxaw di ko yee képp ne ëllëg lamb nga dugal na teel ko ah, ko toog ak moom ci chaise bi léeg nga ko dalal di la pousser pour nga am ndam kooku bu dee ba yàlla les non euh, moom bi euh, muy topp Balla Gaye parce que les ci combat yi mu jiire ñëw mais bu soo am ak Saalum Saalum gisoo Balla Gaye combat ba maam góor soo soo dugal les waaw moom nag mu taxaw ci mu njëkk a bëree premier combat ba ci ñoom papa Sow ba mu dégg daal di Balla Gaye kii doon di ko préparé poussé ko pour mu pour mu doon champion ndax dugal les moo jur mais bi mu nee ba xam ne war naa doon champion ci la dugal les ñëw Balla Gaye nag xelam wax naa ko mu suy kon ni mu taxawee dafa def li a li mu def rek la war a def te xam naa ne Baye Ma Ndiaye Elton les que bu ñu amoon moyens yi Balla Gaye am dinañ ko def El Hadj jërëjëf. mbokk yi. waa la ma ko xool rek du yomb. mais xale yi ma gis ay champion ci na liggéey rek. parce que man daanaa ko wax Balla Gaye ne ko bul topp mbër yu mag yi soo leen toppee bu ñu bàyyee bëre écurie bi day fay liggéeyal ci xale yi écurie day am relève mais moom benn moment bi Balla Gaye ñëwatul wala su amul combat du ñëw dafa commencé woon bëgg a découragé man daanaa ko wax liggéeyal ci xale yi écurie day am relève ndax mbër mu mag li cëpp du dundal écurie buñ siiwee rek toog seen ruq te ruq bi defu la li nga doon moo tax lii tax écurie di dund da liggéey ci relève bi bu ko defee mbër yu mag yi même buñ dandoo xale yi dañuy téye dañuy téye flambeau bi pour mu mën a jëm ci Sëriñ Bamba allamani yàlla xamal na maakaana maakaana lu nekk xablaal xalqi xablaal xalqi jëkk jëkk Cheikh Anta borom Gaawaan lay waxal. mooy taay yi. Cheikh Ibrahima Fall lay waxal. bi gërëm nañ ñu woo. gërëm nañ ku mu këpp si ci doo boo ko ko booleel. ku sopp Sëriñ Tuuba mag lay Sëriñ Cheikh Fall. isa jéey fa di la suka bi mu ni diim. dama fi njubu dama barke Seydina Limaamu ku demoon ci géej gi ku dul sëñ Bamba doo ñëwaat. Amar Faal Seer Njaay barki maam Cheikh Ibrahima Fall. yow di nga tax barki maam Cheikh Ibrahima Fall mu gën a jaamu yàlla. barki maam Cheikh Ibrahima Fall la. dundal. bal fii may tëjee fii. gis nga Balla Gaye feeñu ko suuf. moom maa ngi koy am. gis nga lamp ngor ba fa mu nekk naan nii. xanaa la bàyyi laay génne bàyyi laay dafa ni mën a démb mën a teg. bàyyi laay bi bii béykat. libu yi dem doon wax Limaamu Caw dafa dof mu nekk bi dem fii la bu ngor mi nekk bal ñaari géej gi daje te diggante boobu la leeru bàyyi laay ne ñuy ngor سو بدر من الجمال قلت خير واليدل لا اله الا الله مرفع سلطان ويجلل سبحان الله نعمة الهدى سنة liibaran la jëli maamu laa li bàyyi laay ak aayut xam nga bàll sa maam lu muy bañ bàyyi laay bëggul këram géwël bàyyi laay bëggul tëgg bëggul waaso et problème bu ethnique boo demee laayeen amu fa xoolal ma nuyu nuyoo laay nee leen ma xëy laay xool bu yombe yow doo may sa doom géwël doo ko may dëkk doo ko may séeréer ba nga dem Amérique takk fa américaine da nga xam ndax jiwul africaine la am déet.